damay damay euh, féliciter di encourager le maire euh, Talla Sylla parce que euh, aussi xam naa ne ku am courage politique la mais xam nga Talla Sylla waa Thiès du moom lañ fal weer Idi moo ko nommé mu jot a liggéey jël ay responsabilités am def ko mais li nga xam ne moom laa ci gis mu xaw doy waar moy que souci de transparence bi ñu doon xeex ñun moy que bëggoon nañ mom en tant que maire bu ñëwé ci biir 100 jours bi nañu defal l'état des lieux lan la fi fekk ak naka la ko fekkee transparence bobu ñun soxla nañ ko xam amna benn pro euh, procès lo xamantene ci foncier la bi la won ci affaire suuf si loolu mu ngi euh, entre les mains de la justice mu ngi ci loxoy yoon amna solo pour lolu ñu leeral ko

ñu continuer dafay daan seen doole parce que nag euh, politique la waaye quoi que l'on puisse dire aussi ñooñu ce sont des responsabilités ce sont des pères de famille des mères de famille yoo xamante ne ci loolu la ñu yaakaar ak waxtu fi bi ko def parce que bañ koy def mu ngi tombé ak événement tabaski buñ koy def mu ngi tombé ak événement ouverture euh, année scolaire bañ koy def mu ngi jublu ci wàllum tamxarit te ñetti événement yooyu dafa métti ci waajur yi et période bob yëpp parents yi vraiment dans euh, la désolation totale lolu aussi vraiment la man bëggon na mu jël temps parce que déguerpissement bi mais ko def ci temps mu jël temps def ko de recasement a fofu donc lolu vraiment euh, aussi man bu ko déclaration de patrimoine mom en tant que maire euh, bu ñëwoon defal ñu déclaration patrimoine am ne lii ak li la am ci jamono bi ak jamono bi may jël mairie bi lolu dinañu dimbali ba bu ëllëgee bu ñu gisee taal ak ay milliards wala ak lénen dinañ xam né ah ki won na jël gati wala jël gati wul lolu yépp par souci de transparence amna solo aussi vraiment ma di ko ci invité euh marché PDS bi man dama yaakaar ne PDS nous fa des euh, politiciens euh, nit parce que si ànd ak kilifa mu yor nguur peuple ne ak âge bu mu am PDS fenn fenn fenn di koy politique mais euh, ku xam politique xam aussi ñoom position de faiblesse. Euh, ñu wéru ci Ablaye wat xamné bu Ablaye wat bayé ñom ñu doxal seen bop dara lu leen motax tax ñu koy mettre situation bi mais diko yakal aussi lu bëri parce que niñ ko daré ni actuellement ni non lañ ko daré won ba muy nekk président de la république lolo taxoon mu bëggon le mandat de trop ba muy laajaat ku nekat candidat ñom ñu ko wër ni di buxat buuxaat pour mu dem ñoño nekkon ci wétam donc damay lancer appel rek président euh, ancien président maître Abdoulaye Wade mu ànd ak dal te gëm yàlla na dem toog ñaanal président Macky Sall ñaanal waa Sénégal waa PDS li ñu bëgg euh, mënta ne li tax mënta ne mooy du man maa koy décider du président Macky Sall moom mooy wax mais Sénégal dafa am yoon te loolu dañ cee war a sant président de la République parce que au moins restauré na état de droit droit à la marche lu ñu xaatim la ci constitution kenn terewu ko suñu yoon nangu na ko mais bu ñu un événement bu mel ni sommet de la francophonie sommet de la francophonie boobu dafa wute ak yenn une cérémonie fi daan am parce que c'est un sommet exceptionnel ki fi nekkoon président de la république te ab euh, Abdoulaye ko muy le président Abdou Diouf moom fii lay ñëwaat ci jour ne serait-ce pour image bobu retour au bercail bobu Abdou Diouf bëgg def mérité won na képp ku Sénégal dem ci sommet bobu pour sargal ko ndax dafa paré dem euh, ñu ko francophonie mu liggéey fa liggéey bu mucc ayib ko au terme de son mandat mu bëgg ko ci dëkkam ak da ngay woote démocratie waaye doo démocrate da ngay woote patriotisme waaye doo patriote président Macky Sall nag waxtaan na ci démb ci table de la presse lancé na appel à toute la classe politique parce que aussi quoi que l'on dise xam nga am na benn bindkat tubaab bu ko bu doon wax affaire euh, critique euh, gis nga critique bu fekkee ne euh, dafa nekk cerveau ci sa passion moo gën euh, mu nekk la passion du cerveau ndax kat mënoo dëkk ci réew bëgg koo defar lu ñu yëkkati rek nga ne loolu baaxut mais lan moo fi xew lu war a tax PDS di marche ban situation lañ toll ba ñu bëgg a def marche boo xamante mën taxaar lu fi xew ci diggante bi bu fekkoon ne boobu léegi courant bi dafay kuy xamaj nit ñi am problème courant nit ñi am problème ndox

il faudrait au moins que nous respections l'état respecter état de droit la liberté des personnes liberté euh, de manifester yooyu kenn jéemu ko dindi ci constitution au contraire nous devons mën a def ba dañ koy def parce que loolu bokk na ci tant dundal démocratie mais ñoom tànk bi ñu yëkkati nekkul tant tant que yàq la donc il appartient maintenant au gouverneur gouverneur moi mooy situation boobu naka la ko apprécier bu savez ba xam ne bi

pour rassurer le peuple sénégalais. Bon, par exemple, euh, dans tous les domaines, boo demee Kédougou wala nga dem Sédhiou am ay pôle agricole yu mu fa def aussi mu jël au moins 2000 emplois ñoo xamante ay ingénieurs yu dëkk ci biir Sénégal ñoo leen di encadrer un salarié boo gis am na impôt bu doon tegu ci sa salaire impôt boobu wàññeeku na te kooku day daal encore ci pouvoir d'achat euh, population bi euh, bourse familiale yi lu ci def projet de budget yi assemblée nationale ko au moins mbir mi ci électricité bi coupure courant yi wàññeeku na Dans de première nécessité muy gaz ak ak ak yépp dafa je pense que président de la république mu la bonne voie Euh, amna len aussi euh, xam nga président de la république sortant bui dem ci élection dañu ne mm, euh, bilan bi moo koy Mané bilan bi moo koy mais dafa am lui assurer sa réélection dès le premier tour Moy perspective yi nga xamanté mom lañ am suñu kanam Té perspective yoyu tout est pris en compte ci lu plan Sénégal émergent Tay lancé na euh, l'autosuffisance alimentaire en riz d'ici 2017 loolu ñu mu ngi ci PS. E. té bo xolé ci loolu lu wara mëna mën nekk la amnañ yaakar parce que jël na engagement jël kay yi war yépp pour def ko pour ñu atteindre autosuffisance alimentaire bobu bo démé dans le domaine euh, des des des foyers religieux tay dégg nga sortie bi nga xamante mom moom euh, Serigne abdou Aziz euh, junior wax rafetlu na liggéey bi nga xamante ne la président Macky Sall di def à Touba mu ngi koy def à Tivaouane mu ngi koy def à Ndiassane foyer religieux yëpp gis na ci seen bopp kon loolu dañ koy rafetlu autoroute à péage bu war a jógee Thiès dem ba Touba jógee fii dem ba Tivaouane loolu c'est déjà bouclé le financement est déjà bouclé loolu dañ ci war a sant yàlla euh, donc je pense que euh, boo demee université il y a des réformes universitaires yoo xamante moom lañ jël pour au moins reprendre le système éducatif président Macky Sall bëggul un système éducatif au rabais il faut que ñu gorgolou le ko encourager le ministre marie Niane bi nga xam ne moy conduire tous ces toutes ces réflexions ñu mën ko jàppale gën ko dooleel liggéey mëna jëm kanam euh, je pense bien que par rapport à cette situation ñun en tant que militants, APR que Thiès de jot pour que le maire de Thiès, euh, le président du conseil départemental de Thiès, Idrissa Seck, président de Rewmi xam Thiès élection locale yi ñu jógee nii bu ñu élection locale yooyu ci liste proportionnelle intégrale Idrissa Seck dañ koy duma Thiès ndax boo les résultats yi par exemple en 2012... nous avons en 5 cinquième position ñu de talonné Nous avons jël deuxième position avec euh, presque 45 Lolo, je pense que le euh, président Macky Sall le responsable politique qui n'est pas mu et puis euh, je l'ai dit et je l'assume DG Sirega, il est en train de faire un travail extraordinaire honorable député Abdoumbo, Mbow mu ngi def lu président après élection locale daf ko sanctionné won ñun lu ñu gis mooy Thierno Alassane Sall président de la république daf ko Dolel, a euh, mu dellowaat ko ci gouvernement bi wala mu teg ko ci leen lo xamante ne dina mëna a gën soit ci base bi gëna politique c'est ça la vérité parce que fu nek ni waru ñu toll ci ay position faible affaiblir ki dolel kële képp ku nek ci alliance pour la république président Macky Sall lu mu def pour Dolel la def ko def Augustin Tine mu ngi góorgóorlu mais moo xam euh, il est dans le département euh, boo xoolee tey lu muy def ci biir département bi yépp ñu ngi koy rafetlu mais ci biir commune bi il faut que euh, responsable yi nekk ci commune bi muy docteur Papa Modou Ndiaye muy Auguste muy Thierno Alassane Sall muy Siré muy Abdou Mbow il faut que nous d'abord ñu poser acte de retrouvailles autour d'une table ku nekk fàtte fa nga jaar démb ak sa morom xam ne ni élection bi des élection président Macky Sall Macky Sall bu faluwaatee en 2017 ku ci nek teranga bi nga yor mo nga continuer yoraat mais Macky Sall bu jeexalee en 2017 ku ci nek da nga xam ci li ngay dellu kon bu fekkee ne bëgn nañu continuer ligéyal wa Thiès bëgn nañu falat président Macky Sall il faut que ñom ñoo ñu toog autour d'une table ku nek faté sa bopp ñu bañ di jiiñante ay dëm ay Thierno Alassane Sall débauché na ay militant diou Siré Dia débauché na ay militant diw ñooñu connu ci dimension bobu li am kay moy ci ah politique ci cercle bo gis dina am ño xam mën nañu déggoo mën nañu diiso mën nañu démalanté loolu mën ta ñak loolu mom mo fi nekk et puis après que c'est nekku fi di liggéeyal président Macky Sall Maodo malik May leader du mouvement conscience citoyenne gëm sa euh, depuis mu nekk aux côtés de Maki 2012 lépp lu mën koy élection locale il a fait ses preuves Le président Macky Sall lu a def ba gën koo dooleel def parce que am na mbooloo te mu ngi président Macky Sall donc loolu lu ñu a encourager la leneen li Macky 2012 ñu mel Moustapha Diagne euh, bu synergie républicaine la démocratie libérale yépp je pense que dafa jot nous le plus rapidement possible, nous élaborer une stratégie de travail. Bien en fait, il euh, y a un mécanisme de Mais d'abord au niveau de Magui 2012, leader Ensuite, au niveau de Beno Bokyakar, parce que aussi euh, Beno Bokyakar, lui, a fait mais mon par étape. Wa APR d'abord nous terre leur querelle, yatal ko euh, à Maki 2012 et enfin dem Beno Bokyakar lolu temps bi may nañu ko pour ñu def ko parce que boo xoolee en réalité euh, structures yi doxut APR fu mu nekk ni man li ma gis mooy déjà jeunes yi rek ñoom ñooy góorgóorlu ñoom euh, euh, Assane Mbaye ñoom parce que chaque quinze jours ñu woote réunion def évaluation waxtaan réagir sur la situation politique nationale sur la vie du parti loolu mooy politique mais am na noo xamante ne bu ñu koy doxalee. dafay mel ni comme dañu daal di jël victoire bi jox ko Idrissa Seck te loolu day day delloo militants yi ci loo xamante ne bëgguñu ko woon def militants yi am na ñu bëri ñoo xamante ne ànd nañ ak président Macky Sall rafetlu nañ président Macky liggéey bu muy def kon li ci des mooy ñu jéem a fexe consolider loolu. Euh, euh, ànd nekk benn présentement waxtu bi ñu toll nii. loolu dootul jafe waxtaan ci loolu dootul jafe xam nga lu tax parce que nag bu caaxaan passé fii ku nekk xam nga ki la mën jógee nii. Euh, war na noppiloo ñu bëri coow lay bëri euh, parce que dafa am waxtaan bu ñu tàmbali moo tax mënuñoo annoncé tur mais nañ ñaan yàlla waxtaan boobu ñu yégale ko euh, du yàgg di nga gis leader yépp toog ne diw lañ jiital te coow du jib ndax président Macky Sall génnewu ci loxoom am na ay acteurs yoo xamante ni ci parti bi lañ bokk nekk ci yeneen régions yi ñu ngi ciy waxtaan ñu ngi ciy diisoo. Et Inch'Allah, allah loolu parvenir li qui est am solo président Macky Sall posé acte de rupture parce que très souvent je me dis que ah Macky Sall rupture rupture rupture man nous euh, nit ñi li ñu xamul rupture bi mu ngi tàmbalee les ci décision importante yi nga en conseil des ministres C'est euh, le du temps du parti socialiste ak jamono PDS. Euh, bu bureau politique ab PS euh, defoon euh, sen communiqué wala euh, secrétariat exécutif bu PDS def sen communiqué le lendemain conseil des ministres bu amène. c'était les mêmes décisions Tetei, tey amul ben lecture conseil des ministres booy déglu di jaawarle lañ fay wax ak la ñuy wax ci réunion directoire APR amul lenn lu xew ci conseil des ministres nga ne ah lii kat waa benn bokk yaakaar waxtaanee woon nañu kooku c'est le premier acte de rupture boo c'est un acte fondamental beneen bi euh, la séparation des pouvoirs réalité la justice mu ngi def liggéeyam exécutif tegu ci le euh, législatif mu ngi def liggéeyam exécutif tegu ci donc rapport de confiance bi waa seen diggante loolu mu président Macky Sall fexe na ba ñu góorgóorlu consolider les institutions li ci des mooy son mandat. Euh, bi nga xamante 2017 lay guerre euh, ñu réélire en 2017 dès le premier tour et loolu lu mën a la l'unité se fera bientôt autour d'un leader qui est là et très crédible parce que aussi loolu def ci am solo donc cette bataille de positionnement là elle est une bataille finie lu ñu weesu la lu suñu euh, opposition moi je dit que

Eh, jàppuñ ci pour président woo ñu suba suba jox ñu ndomba tank dedet jeune yi lu ñuy liggéey ci biir parti bi bu fekkone dañ ci xaar ndomba tank ko ni bàyyi nañ bu yàgg bu fekkone ne ndomba tànk rek mo leen fi bàyyi won ko ni bàyyi nañ bu yàgg parce que amul benn jeune bu fi am ndomba tank amut kon nga xamné ne li ñuy def dañ koy def ak conviction mais yàlla def ñu sutural aussi ñu ànd ak ay leader yoo xamante ne ku nekk yaa ngi gestu di def loo mën Siré au niveau de la poste am na ay jeunes yu bëri yu mu recruter président Macky Sall bu defee loolu ak Siré def ko benn la sotti ci ak def ci la Thierno Alassane Sall quand il était ministre ba tey nekkatul ministre waaye am na ay jeunes yu bëri yoo xam ne jël na leen casé leen fenn ba mu nekkee ministre aussi ñi nekkoon ay jeunes nekk ci wetam am na fu mu leen dugaloon je pense que lolu lolu moy Le président de la république Assane jox ko Mamadou jox ko Ibou jox le Sénégal ne se limite pas à Thiès jeunesse bi euh, gëm nañ sen bop ñu ngi liguey té inshallah dinañ continuer combat bi xana kay euh, président de la république mu fi na place anam. DG Siré Diamou gën ko Pape Amadou Ndiaye aussi la même chose honorable député Abdou Mbow la même chose té ñom aussi ñu ñëw li ñu am ñu bokk ak population bi nañ gëna a yaatal bu ko défé lépp lu président soxla dès le premier tour en 2007 mën nañ ko réussir parce que le combat politique c'est pas un combat de deux jours de trois jours 2017 c'est pour moi demain pour man suba donc tel nous sommes préparer il faut que nous tel a wax nit ñi euh, bañ jël temps de récréation amul noppalu en tout cas man en ce qui me concerne muy guddi muy bëccëg maa ngi ci terrain bi di waxtaan ak militants yi di leen di encourager et di góorgóorlu aussi pour faire le rassemblement pour fexe unité am autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui reste c'est l'élection de 2017 le président Macky Sall il a déjà un bilan très concret am na bilan bu leer nañ mais bilan boobu perspective yi ñoom ñoo ñuy yombalal ba ñu mën ko dès le premier tour avec 65 le cent mën a la jeunesse bi gëm nañ ko yi gëm nañ ko et j'en profite également vraiment pour remercier le ministre Moustapha Diop du koy du di parce que moom ñëw na fii euh, a une enveloppe de 600 millions jox ko jigéen donc Moustapha Diop gàcce ngalaama moom euh, jigéen ñi ñu ngi koy gërëm di koy sant vraiment euh, mu ngi jàppale président de la république parce que jigéen ñi ku lañ jàppale rek lañ soxla boo leen joxee ñaar téeméer sax financement ñu jël di wëlbati mën cee yor seen njaboot mën cee wàññi seen jafe-jafe yi loolu mooy àdduna loolu mooy politique. nit ñi mënuñu chaque fois nga yëkkati ay enveloppe leen di jox am na yoo xamante ne bu amee day yombal liggéey bi ci côté emploi ci côté financement donc li ñu defal femmes yi euh, dañ koy rafetlu mais aussi di ñaan loolu ñu gën ko euh, yaatal.

fal la nga soppi yow